gaa yi abe sifflé na ndeysaan combat choc combat dëgg bi Doudou Sané à droite Ablaye Ndiaye à gauche ndeysaan Ablaye Ndiaye dafa nekk Joof Yoor ndeysaan premier combat choc bi ci Joal ndeysaan tegal nañ leen 3 ak ñaari fas Doudou Sané Ablaye Ndiaye eh, eh. eh Doudou fatt na ko Doudou Sané eh, Ablaye Ndiaye ndeysaan Doudou Sané Ablaye Ndiaye eh Ablaye tante na ndeysaan ñaari poids lourd la combat bi du yomb Ablaye Ndiaye Doudou Sané eh eh Doudou Sané wax na ko ndoomu Doudou Sané da koy yëkkati eh eh Doudou Sané Abdoulaye Ndiaye waaye Doudou Sané daan na Abdoulaye Ndiaye Doudou